Euh, sunu leader yi euh, tàmbale ko ci euh, président son excellence le président Macky Sall ci loxo bi nga xamante ne da le président Idrissa Seck président du parti Réuni, nous mu accepté ko loolu nag nekk loo xamante ne tey ñun ñu nekk ay militants bu alliance pour la république nekk ay ay militants Benno Bokk Yaakaar lu ñu rafetlu la parce que nag dañoo war a réew mi day arrivé ci jamono yoo xamante ne ku ci nekk surtout ñi nga xamante ne tey ay ay doomi réew mi lañ te ñëpp xamee leen ci trajectoire boo xamante ne jëriñ réew mi rek lañ nekkee te loolu mën nañ ci cité tey ku mel ni le président Idrissa Seck tey liggéey bi nga xamante ne sumb na ko ak président de la république du leneen lu lu jëm ci njëriñi askan kon ñun nag loolu nga xamante ne ñoom ñoo koy def dañ leen war a mettre à l'aise fii au niveau ci suñu collectivité territoriale yi ñun ak nous nga xamantene tay ñoo ci parti réew mi ñu ñew andando liggéeyandoo loolu moo waral tay suñu ñëw bi fii nga répondre ci appel bi nga xamante ne organiser pour mobiliser waat euh, militants mobiliser waat population bi autour de l'essentiel l'essentiel moi œuvre bu mag bi nga xamante ne tey ñoo ngi koy construire sunu Sénégal bii waaye nag ci biir remobilisation beaucoup dafa am lenn loo xamante ne da ko waral puisque nak dafa am ci yoo xamante ne dañ ko répondre puisque dafa am ñu jël ay une partie ci ndaw ñi di leen di manipuler di boole kook ay menaces ak manipulation beaucoup xamante xeet dafa jéggi dayo té loolu nak yaakaar naa ne waratul nek lo xamanténi dañuy toog rek diko sétal ñoñu di woté nak benen vague nañ xamné ni ñi def virus rek nga xamanténi virus destination finale finalam su lenen lu dul dañ koy phagocyté tey la grande majorité présidentielle bés bu joggé taxaw taxaway bi nga xamanténi mom moko war ñoñu yaakaar naa ne kenn dotul wax seeni wax loolu nak dañ koy tambalé ci fi nga xamanténi fi lañ dëkk te ñu nangu kenn koo xamante ne ñëw na ci réew mi naan dafay menacer ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi ñoom ñoo fi yeewoo di menacer ñi nga xamante ne tey ay partenaires techniques et financiers yu Sénégal lañ pour mën a ñëw investir ci wax jamono ji nga xamante ne ñoo ngi wax waxi emploi ngay xoqatal di tiital réwmi investisseur investisseurs yi di am titangé bo xamanténi ne dañ koy am ci biir réwmi lolu stratégie bi wara jox suñu ndaw ñi xey réwmi ay kalifa yu mag ñoko ñoko défar ñoko tabax bañu ba fi duñu bayyi nak ab aventurier bo xamanténi ligéyam yépp du lénen luddul mensonge ak manipulation ak menacer askan bi ñu bàyyi ko muy def ci biir réwmi mi lu ko neex bés bo xamanténi nak li fi nangul kenn mu fi xewat lolu nak yëfi état nak ñom ñoo xam nan lañ koy gérer waye ñun politiquement dootu ñu téye ci bu yëf yu mel ni bëgg a am puisque nak ki nga xamantene tay tey am na 58 pour keneen ki ko fekk ci ñew am 20 ak ñeneen ñi nga xamantene ne ñëpp fekk ci nañ la majorité présidentielle bu ñu mobiliser won 1 dixième ci seen i électorat rek xejul ci ñi nga xamante ne ñoom ñoo fi nekkoon naan dañuy woote pour taal réew mi loolu nag état bi na liggéey liggéeyam waaye ñun politique dinañu répondre ci la nga xamante ne loolu dina ci am te ñiy continuer di menacer wallaay dañoo xamul fi nga xamante ne foofu lañuy jëm ak suñu réew mi puisque dootuñu ko nangul kenn.